dafa dëj ay da jox mi ngi nii baa ngi nii borom dagal naa ngi nii yaa moom dagal réew mi yow ma bëgg bëgg ajaratu muy faal sunu xarit asiya ba fonk ko lool ñoom yaa ànd ak say délégation ñu ngi nii yaay sama idoom. dëgg la soo ko passé rek nga gis bàyyi barrage bi. nee na nee na ko yow rek laay wéy. dëgg la boo ko rombee gis gis barrage bi. waaw baa ngi nii ak maa mën a dimbali ñëpp a ngi fi. réew mi Sénégal ñu ngi fi ci bisu gàmmu ñoom. maman Aida Diongue ngi noonu sama xarit bi. aywa ci ne laa ba ba ba googu toog sama mag. ki ma def fee ci ne laa. sama mag nga xam ne foo jëm ànd ak ma demoo fenn ba wu. tata. aywa Aida Diongue sama yaay jàngu ak maa mën a dimbali yaay Mouhamed. sama yaay jooju ak maa mën a bett. sama yaay dama bàyyi benn yoon. Merci. yow mën koo def allo allo allo. Binta. Binta kay. waaw mais dañ ci doon de. amul si nan sax. xaaral ma nit ñi mais xoolal. xoolal xoolal s'il vous plaît. loolu for Baye Diagne c'est ça le problème. ala dawmi musamake mama kirala sinanta mu sinanta madame Seydou mooy gan gi jóge Gabon c'est marqué ça damel teen ba naka ni si saa aja ay da jongo wala ko mama ay da jongo gi ni jàmbaaru son excellent waaw waaw waaw boucher la mo na la ko ma la mo fi deputada de Gracia, tema africana y otro film. Maa fi chéri Aïda Aïda Aïda fi. Aïda Toumbay Fall bu baax. madame Seydou Fassé madame Seydou Diallo ñaata la wax borom Gabon. ndaw lañ seetlu ak kontaan naa kontaan naa mais madame ñëw nga jërëjëf kontaan naa kontaan naa El Hadj. amoo celle-là, c'est notre maram. Tu connais les Bakina Oui. Celle-là, c'est le Karim Bakina. Fille de Sering Sarim C'est à Bouba, donc elle est petit-fils de Sering Sarim Dapatika samani. Dapatika samani. Madame. mbaaxal yiw ak baax mais mais ñaar yéen bokk maam de. ah Aïssatou Sabar Ndar la jéeri ngoone maam yéen a bokk maam yéen ñaar <laughs> waaw ci yow la. sama sama sama fils. sama fille. sama fille bu baax xale bu baax bu yar la princesse. xoolal loolu. xoolal loolu. bu baax. Comme son esclave, mon esclave. Son père est mon mais madame ñëw

k'a dan ka segin kɔni baasi tɛ gabɔ i b'a fɔ aja ye k'a dan ka segin kɔni baasi tɛ libreville i b'a fɔ aja ye k'a dan ka segin kɔni baasi tɛ bamakɔ i b'a fɔ aja ye k'a kɛ mahamudu dɔrɔn togo kɛmɛ fila ani kɔ kelen a fɔra masa min ma ko alamu a fɔra masakɛ min ma masakɛ y'a yɛrɛ da ka tila k'a yɛrɛ tanu o de ye aja o muso an bɛ alakira mahamadu ka bangeli la o muso in ta a yɛrɛ nafolo a ko k'a ala ko nɔfɛ a b'a don alakira ko nɔfɛ a fɔra arabukan ma ko muhamadu n'a fɔra a ma ko ayisu ɲɛmɔgɔlayi aliyatulayi u ato u ti ka ala ma dugu fɔ a ma jamana fɔ. sinanta madamu seyidu jalo a tɛ bɛɛ ti layi sinanta kununko ani bi i se ɲɔgɔnnaw la. 꾸누네비 이비 사인 원하구나 꾸누원이비 이비 a 꾸누원이비 하나 있냐 포라디마 꾸누원이비 일단 땅아 떼냐 꾸누원이비 이따 캐라토에 꾸누원이비 이따 바뀌고 aja selila madina wa wala mama seli o oh, silanta la presse salila madina ay wona mo edini o salila madina ay wona mo salila arafa ah dili o salila عرفا قد علم قد كرما لا إله إلا أم صلي لا مدينة soxna May dama teral ñëpp. Abdou Karim Ba mi fekk Touba. soxna May Karim.

sama gan bi mooy surprise sama gan bi sama gabonais bi uh-huh. sama gabonaise bi mooy surprise bi waaye. ça vous fait quoi de aussi au Sénégal. vraiment je suis très très contente. Uh-huh. Machallah, je salue tout le monde. Je salue ma jumelle aussi. Je suis très contente pour l'accueil. Elle m'a très très